Moustapha maa ngi lay nuyu di la siyaar tey ñu ñëw fii ci yoof ci genn àdduna ki nga xamante ne mooy suñu papa Boy Bambara mu nekkoon kenn koo xamante ni kenn la woon ci làmb euh, ban yëg-yëg nga ci am. waaye ñaanal ko yàlla yàlla xare ko aljanna tey julit yëpp fi daje di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljanna bi jaay Seydina Muhammad mooy li may wax léegi rek. man dafa am lu mu booleeg moom muy ñu yore sama agent communication muy cuun ak papa. hélas hmm. cuun ak papa ñoom seen papa moo doon entraîné Boy Bambara. Hmm. ma leen koy jaal aussi di ko jaal famille bi yëpp. di wax ne aduna moom nii la. nit moom bu dédoo da nga koy ñaanal yàlla yàlla xare ko aljanna rek. waaw ñun ñi fi des ñu leen di ñaanal. loolu daal mooy. kon ngeen gisee ci làmb yéen ñaar. waaw daan nañ gise wax dëgg yàlla am na un jour ma ñëw di bàkku ñu tee ñu man ak moom ci bunt bi mu ne mu kii sam di passé la bëre yàlla may ko ndam bu leen ko téye may leen ko mu dem loolu ci laa ko gën a jàppe wax dëgg yàlla. Mm-hmm. lan kàddu ngay ñi nga xamante ne njaboot gi mu fi bàyyi. waaw di leen mosawu rek di leen wax ne àdduna moom nii la demal maa ngi ñëw la rek ñu gën a muñ te xam ne àdduna moom noonu rek la quoi. Eh. sa naataangoo làmb yi lan nga leen wax ndax yu mel nii saa su amee dañuy gis ñu ñëw am taxawaay bu rafet boo xamante ni ñu ngi ko ciy taxaw. waaw champion yaa ngi fi monde lamb ñu ngi fi tey gis nga fi ñëpp ah. noonu la demee gars yi ñoom ñoom ñëpp benn lañ bu ñu xewlee moom ñëpp ay ñëw teew. Hmm. mais terrain ba moom terrain ba la mais xew-xew bu amee moom ñun koy partagé quoi. jërëjëf Tapha. thank you.